asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi nu ne leen di leen jaajëfal bu baax a baax seen topp ak Star TV ñi leen di dalal ci xibaar yi marax yi ngeen àndi ceeg Dado Thiam ci ponk xibaar yi yu ci gën a di dina ànd ak yéen ci ab peaceful protest bi nga xamante ne kay doomu aadama yëngatu ci wàllum five years bi ci jamono juntool ni nag daal dinañu ko rek def niki démba OIC 2022 mu doon ab ndaje adduna euh, wérgal képp nag ñu pare koo def euh, fii ci réew mi ci at bi nga xamante nag leen ko war a mën a digmal si pour def ko euh, fii ci réew mi nag leen ko paree def loolu waral nag daal ñu rek ngénte ab sent boo xam ne dinañ ci war a mën a dalal ay gan moom di taf Ndiaye doon ko xam ne mi ngi yëngatu ci wàllum real estate daal dina rek sànni ay kàddu jëmale ko ci wàllum euh, li nga xamante nag mooy pàkk bu jëm ci wàllum burfut ak lu méngoog lii di compagnie am bi mbokk yi dineen ànd ak yéen i tamit nag APRC si jamono juntoon nii ci euh, waxtaan bi nga xamante nag seq ne ko ak former président yaa Jammeh ci biir waxtaan boobu noonu nag dineen seeti kàddu yi nga xamante nag moom président bi daal di woon na ko gaaral mbokk yi foofu bitim réew dineen ànd ak yéen ci ñi nga xamante nak ñooy Kenya daal di ñu rek wax ne am na ab attaque bi nga xamante nak xew na fa ba ñetti doomu aadama ñu yëngatu ci wàllum jàngale bi daal di ñàkk seeni bakkan Zimbabwe si jamono juntoon yi nag ñi ngi xeex rab yi nga xamante nag ñi ngay jóge ko ci àll bi di dugg ci doomu aadama yi nag di leen far faat su ko defee mbokk yi dineen àndak ak yéen faram fàcceel leen xibaar yi niki démba si euh, fukki fan ak ñaar ci weerum januari 2020 euh, ñi nga xamante nag ñi ngee nga tu ci wàllum lii di bunti kaaraange gi daal di ñu rek jox ab pamit euh, pour five years mbootaay bilee daal di war a mën a def seen peaceful protest maanaam doxam ñaxtu bi nga xamante nag ñu ngi ko lal si jàmm te si si yi nga xamante nag jaaral neen ko ci Ibrahima Soriba moom jiite lii di organisation boobu noonu daal dina wax ne daal ñoom ñi ngee def seen i kéemtilaay kàttan rek pour wan askan bi ne ñoom lu leen tax a jóg rek mooy pour euh, wax kii di président euh, Barrow pour mu daal di war a mën a toog ci diiru juróomi at yi nga xamante ne nag euh, constitution bi ci boppam loolu la daal di bind dineen ànd ak Seydou Camara mu ngi ci yaatal. niki dimance bi ñu weesu ay junne Gambians génn ci mbedd yi di ñaax njiiti réew mi. pour mu fàtte lu aju ci ñetti at yi mu diggee woon mu toog nag jiite réew mi lu toll ci juróomi at comme ni ko constitution bi tënkee mu di baatu réew mi. bi dañ gis ne mooy constitution bi mooy loi bi nga xam ne moom moo moom moo nekk ci dëkk bi te loolu moo war am loolu moo tax ñu génn waaw loolu moo gën a tax ñu génn dooleel luwaal bi xam ne ci réew mi lañ bokka war nañu génn loolu tax ñu génn. politique réew mi nag jamono ji ñu gis ci ab xaajaloo ñii ne nag njiiti réew mi dafa war a jox cër si nangutoo bi mu amoon ci atum 2016 ci jamono jim jiitewee son bi ñii ne déet na toog nag def lu constitution bi santaane toog jiite lu toll ci juróomi at ba atum 2021 mu am ab kuréel wuñ tuppee opération Tries jot na àndu ñokk njiiti réew mi di président Adama Barrow pour mu jiite réew mi lu toll ci juróomi at wàccoon nañ nag ci mbedd yi di ñaax njiiti réew mi pour mu jëfee ay kàddoom tekki tekki am nombal tànkam ci boppi nguur gi mu am beneen kuréel it bu ñu tuppee cu Gambia for five years ñoom itamit wàcce ci mbedd yi di oo njiiti réew mi pour mu jiite réew mi lu toll ci juróomi at ndaxte loolu lañ tënk ci baatu mi mu di constitution bi niki dimanche bii ñu weesu nag mu am ay junne junne gambiens yu wàcc ci mbedd yi nag def doxam ñaxtu tàmbalee ko foofa ca Steen Corner jublu Denton Bridge di oolu njiiti réew mi pour mu des ci nguur gi ba atum 2021 ñoom ñu nekkoon ci doxam ñaxtu bi nag ñu ngi doon yuuxu di wane ne liñ bëgg daal mooy njiiti réew mi mu toog fi lu toll ci juróomi at bokk na ci Ramu Njaay nee na juróomi at nag mooy jàmmi Gambia bi moo waxtaan ak Star TV reporter bi ci pousse-pousse bi nga xamante rek mu ngi fa toog en tant que laago Sékou Marong National Assembly member bu Latrikunda ji moom nag nee na opération Therese jot na lii ñuy oote daal loolu ay caaxaan la mu ne moom nag mun naa dégg nit ñi ne njiitu réew mi di président aadama Barrow du nangu mukk lii nga xamante rek opération Therese jot na ñu ngi koy saaku ci réew mi ndaxte président aadama Barrow du wàcce joxe lenge yi day toog matal juróomi atam yi mu ne loola nag mooy lii am ci réew mi Henry Gomez moom itamit adviser la ci njiitu réew mi di président Adama Barrow wax na ne nag Gambien si liñ génn ñi ki dimanche bi lay wane na ne Gambien si ànd nañ ak njiitu réew mi di président Adama Barrow pour mu toog jiite réew mi lu toll ci juróomi at. doxam ñaxtu yi nag def nañ ko benn weer gannaaw bi nga xamante ne rek opération Therese jot na génn nañ ci mbedd yi ñoom itamit def doxam ñaxtu tàmbalee ko foofa ca Steen Corner jublu Denton Bridge di sàkku ci président Adama Barrow pour mu tekki am nambal tànkam comme ni mu ko diggee woon ci atum 2016. moom jiiti réew mi naka ci ay kàddoom wane woon na sax ci yooyee jamono ne moom bëggut nguur bëggut a nekk sax njiit ndaxte loola soxalu ko lim bugg daal mooy jiite Gambie ci ñetti at bu matee mu tekki ab ndombal tànkaam waaye dafa mel ni jamono ji kàddoom yooyu nag soppi na ko bëgg naa toog fii nag jiite réew mi lu toll ci juróomi at ñoom kuréel wi nag di Gambia for five years gannaaw buñ tàmbalee seen doxam ñaxtu yi foofale ca Steen Corner ba Denchim Bridge yëkkati nañ ab bataaxal buñ tuppee ci pétition foofa nag liñ fa bind tënk ko fa may lii ñuy sàkku ci njiiti réew mi di président aadama Barrow pour mu toog rek jiiti réew mi toll ci juróomi at bataaxal bi jébbal nañ ko koy wax ci làmmiñu nguur gi mu di Ibrahima Sankare pour mu àggee ko njiitu réew mi di président aadama Barrow ci bataaxal booba nag ñu ngi woon njiitu réew mi ni président aadama Barrow ne baatu réew mi mu di constitution bi section 65 mu di ponkel bi di juróom benn fukk ak juróom ci 1997 constitution bi liñ fa tënk daal mooy ne képp kuñ tànn jox la lenge yi pour nga jiite réew mi da ngay toog lu toll ci juróomi at nga doog a mun a dugaat ci yeneen élection te wax nañ ponkeel boobu ci constitution bi moo ëpp doole 2016 coalition agreement bi mu di nangutoo buñ amoon ci coalition bi ci atum 2016 seydu Camara Star TV News. di jëfal Seydou Camara mbokk yee ñuy jàll seeti OIC 2022 uh, mu doon ndaje bi nga xamante nag àdduna wërngër képp dañ koy faral di def te at bii di at 2022 uh, leen ko paree def rek fii ci biir réew mi di réewum Gambia loolu war nag am na yu bëri yi nga xamante nag nguur gi ci boppam uh, ñu koy ngénte si jamono juntoon yi su ko defee gan yi suñ ñëwee ñi daal di leen war a mun a dalal ci jàmm ak tam ci bëri yi nga xamante nag di leen war a mun a def seeni mbootaay ba waral na nag ci jamono juntoon daal ñu rek ngénte ab senta maanaam foo xam ne dinañ foo war a mun a defee sañuy ndaje te lii di senta boobu nag ñu ngi ko tuddee Sir Dawda Kairaba Jawara ci li nga xamante ne nag mooy building boobu noonu Chinese si seen bopp ko daal di tabax te dugal nañ ci lu toll ci 50 million US dollars te boo ko xetmee si dalasi dina toll ci 2 billion dalasi leen daal di dugal ci li nga xamante nag mooy senta boobu dinañ ànd ak kii di Amadou Bari mu ngi ci yaatal ginaaw ñaari at tabax réew Gambia daal di ubbi ci njëlbenn yoon conference centre bu mel ni bâtiment bi am ñaari taax nekk ci wetu géej gi nekk luñu ñu njëkk pare ci projet yu ñu war a tabax ngir mëna dalal ndaje réew jullit ñi ñu duppee ko OIC bu weesoo ndaje moomee président Barrow xalaat ne conference centre bi dina àndil koppar réewam. I am hopeful. ñoo ngi xaarandi lu bari ci senta bi lu ci mel ni ay ndaje waxtaan xeetu yu ne ak exhibition bërëb bi dina tax ay gan ñëw ci réew mi dinañu àndil xëy dina yokk wàllum tourisme bi itam bërëb bi dina wone sun aada ak cosaan ci gàttal. Our njiitu réew Gambia daal di rafetlu relation diggante réewam ak China nga xam ne 2016 leen ko defaraat moo waral nag projet bi mën a sotti bâtiment bi mën a jël lu ëpp junni nit am na yeneen xeetu dalekaay yu mucc ayib jëruñ Gambia bu njënk wàllum dem ak dikk ak jokkalante bi wax ne senta bi bokk na ci yu gën rafet ci Afrique soo jant. And the main plenary as already mentioned again. saal bu gën mag bi mën a jël lu ëpp junni nit building bi nag bu yànj te bokk na ci standard internationaux yi conférence centre bi nekk njëlbeen yoon ñuy tuddee njiitu réew mi fii woon di ba Jawara ci bâtiment lu mel président Barrow daal di wax ne amuñu woon beneen opportunité ngir sargal ku fi njëkk jiite réew mi. pour delloo njukkal ku ñu njëkk yilif ñu daal di tuddee bërëb bi International Conference Center Sir Dawda Kairaba Jawara ci tuuru famille bi Nema Jawara di doom si njiitu réew mi fi woon daldi di gërëm waa réewam ñuy gërëm ñépp ci li ngeen tuddee bâtiment bi sunu papa silis ay ñi nga xam ne bari nañu gis bërëb bu yànje biit ñu tuddee ko sunu papa nekk na mbégte bu rëy ci ñun. that the building Gambia war a song léegi yeneen liggéey yu des ci ñaari at ngir mën a dalal ndaje réew jullit ñi ci njëlbeen yoon. Amadou Barry Star TV News. su ko defee ñuy jàll seeti beneen xibaar gannaaw bu ñu jaajëfalee Amadou Bari ki nga xamante nag mooy Taf njaay bokk ci ñu yëngati ci wàllum real estate fii ci biir réew mi moom Moustapha Ndiaye nag moom real estate boobu noonu daal dina sànni ay kàddu jëmale ko ci ab pàcc bi nga xamante nag euh, wax ne ne mu ngi indi ay jaxasoo si diggante compagnie boobu ak ñu yore wàllum li nga xamante nag mooy àttekaay bi euh, ba a nag moom mu jiite lii di compagnie boobu daal dina sànni ay kàddu jëmale ko ci li nga xamante nag mooy histoire booba euh, ànd ak Omar Tunkara ci yaatal. TAF Africa Global doon bunt boo xam ne ñoom ñoo jiite ci wàllum ay tabax kër fii ci bureau Gambia ñoo doon màggal seen fanweeri at gannaaw bi ñu sosoo ba tey euh, depuis atum 1990 nag jàpp na ne ñu ngi ci ay tabax kër di rafetal ay béréb wala boo ay dëkkuwaay fii ci bureau Gambia. waxtaan nag ki jiite nag euh, lii di euh, bunta boobu wala boog compagnie boobu di CEO bi Moustapha Ndiaye ñu xàmmee ko bu baax a baax ci taxawaayam ak i tamit gis-gisam ci wàllu liggéey réewam taskat xibaar yi nag ñu doon waxtaan ak moom. fan yi nag dégg nañ ay kàddu yi nga xam ne nag ah, ñi dëkkee foofu la sa Brufut ñu ngi ko wax ne moom tuumal nañ ko si ne moom dafa nangu ah, këri jàmbur yi nag foofu li nga xam ne nag moom mooy villa bi ci ay kàddoom daal naka ah, moom moo ko sampoon foofu la si atum 2006 foofu nag la kilifa yi bari daloon ba ñëwee nag si African Union Summit bi nga ne ñu ngi ko defoon fii ci biir Banjul ba tey nag wane ne boobu bu mu xewee ba tey jile am na ñu bëri nga xam ne ñu ngi ko si doon tuumal ne ñoom taf daal mooy taf construction limited comme ni ñu naan ooyee gars yi ne dañoo déggoo ak former président Jammeh nangu nag këri jàmbur yi foofu la si coastal town bi mooy si béréb bi nga xam ne nag sori wante wut ak géej gi tey ji ñu koy ooyee ooyee Brufut Garden tabax foofu li nga xam ne nag moom mooy AU villa bi waaye moom kii di uh, CEO bi nag jamono ji mu ne Gambie nag melut ni démba Gambie tey jile daal dafa yaatu lool képp ku gëm li nga wax daal mën nga dem si këru attekaay su ko defee ñu dem ñu atte foofu li nga xam ne nag moom mooy kees bi moom pare na képp ko samoon nag ci buntu attekaay yi dina dañu wuy ji la waaye tamit nag dina dem taxaw boppam nag ci court si nag fii ci biir réew mi interview boobu nag mu ngi ko am ak taskat xibaar yi foo xam ne war na foofu affaire yi business am bi war na itamit réeroo bu dox si digganteem ak former président Jammeh benn it interview boobu tamit moom kii di uh, taf nag waxtaan na foofu tamit jaar-jaaram wax tamit dogal bi nga xam ne loolu moo waraloon ba mu daal di génn li di réew Gambia loo xam ne ñu bari dañ ne daal réero bu am ak digganteem ak former président Jammeh moom moo taxoon na ba mu bàyyi Gambie dem euh, foofule sali euh, bitim réew waaye moom kii tamit wax na si li jëm ci wàllu plan si nga xam ne am na ko wala boo pexe yi nga xam ne mu ko teral pour na gën a màggal li nga ne nag moom mooy compagnie bi continuer na di liggéey li nga ne nag moom mooy réew Gambia Omar Tunkara Star TV News di jaajëfal Omar Tunkara ñi jàll seeti waxtaan bi nga xamante nag wax ne ni ci jamono juñ toll nii nit ñi ñu ngi koy laam-laamee waxtaan boobu noonu nag ko seq euh, mooy kii di Rambo Diatta ki nga xamante nag mooy former président Yaya Jammeh te ci biir waxtaan boobu moom former président daal dina rek sànnee kaddu jëmale ko ci wàllum parte bi di APRC euh, moom nag wax ne ne daal parte bi nekkut parti boo xam ne euh, joolaa yi kese ko moom te ñoom nag ñu yaru rek lañ fa daal di dajale loolu war nag mi ngeen ñaax ñu fa nekk ñi daal di dal def lépp loo xam ne rek méngoog nag loi bu ñu daal di teggi euh, seen tànka ci loo xam ne loi euh, bu guur ko fii ci biir réew mi su ko defee rek dineen ànd ak Seydou Camara mu indi ci yaatal. bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyeekoo ci former président bi di Yaya Jammeh xamle na ne APRC parti la bi nga xamante ne ni pour nit ñu gëm seeni bopp lañ nit ñu ragal yàlla nit ñu gëm yokkute. nit ñu bugg réew mi waaye tamit buggal li ñu doon mu di Gambians saa su ne tamit ñu bugg a Gambia di jëm ci kanam mu ne APRC nag nit ñooñu lañ bëgg ci biir parti bi mu ne loolu moo waral ñu daal di tuppee parti bi APRC mu di Alliance for Patriotic Reorientation and Construction Jammeh mu nga gaarale kàddu yi ci waxtaan bi mu am ci digganteem ak Ousmane Rambo Jatta moom Jammeh daaxalu na kàddu yi ñuy wax ci réew mi di wane ne APRC parti joolaa yi la former président bi di Jammeh nag mu nga bàyyeekoo ci xeet bi le di joolaa yi moom Jammeh bi moo tontu ci tuuma yooyu wax na ne ndax foog nañ ne moom rek mun naa sos parti bi la di APRC mu ne nit ñiy wax ne APRC parti joolaa la nañ leen dàq génne leen ci biir parti bi mu ne moom dina samp ab kuréel wi nga xamante rek kuréel yi diine lay doon mu boole ci gambien yëpp mu njëliñ gambien yëpp waaye nag du samp kuréel wi nga xamante ne nii joolaay rek ñoo see gis seeni bopp mu ne yal na ko yàlla musal ci loola waaye tamit muy xamle ne nit ki boo ko tuumalee ci li nga xamante rek duwut loola di nga jël baakaaram te moom sant na yàlla ci jamono ji nga xamante ne nit ñi koy tuumal ne nu mel jël nañ baakaaram yi. mu ne lim wax baro nag laata moo bàyyi réew mi mooy njiitu réew mi di président Adama baro bu mu caaxaanee mukk lu jëm ci wàllu jàmm ak kaaraangeeb réew mi. mu ne kon bu waxee loolu njiiti réew mi di président aadama Barrow du mun a dellu si waat di ebal nit ñi pour ñu taal réew mi mu ne loolu nag ji ko seytaane la mu ne li muy ñaax APRC supporters si mooy képp kuñ dëgg muy saaga Babili Mansa muy former président bi di Jammeh nañ fàtte nit kooku ñu dem doxi seen soxla yi former président bi nag tontu na Ousmane ramboo Diatta di ko wan ne moom nekkut muus ci jamono ji nga xamante ne député APRC interim leader bi mu di Ousmane ramboo jaata jëfandikoo na benn baat bi nga xamante ne nii moom mu ngi firndeel ne daal am na kàddu bi nga xamante ne rek Bob Marley waxoon na ko ci benn wéyam di wane nag bu fekkee ne muus bi dem na tukki ci jamono jooju nag la janax ji dee bàkku wala boog sax di fecc moom jàmme nag xamal na ko ne moom du wut muus Rambo fàttalil ko ne lii baat la rek buy firndeel ne bi nga nekkee ci biir réew mi amul kenn ku am sañ-sañ bi pour saaga la wala boog tuumal la li amul naka noonu it moom former président bi di jàmme xamal ko ne daal ñooña sax yellawuñ pour nekk janax ndaxte janax sax duy tooñ mu ràcce Rambo ndax Rambo mus naa gis fu janax tooñe wala fu fu janax defee lu doon bàkkaar moom Jammeh nag mu continuer laajte Ousmane Rambo jaata ndax bi mu nekkee ci biir réew mi am na ki nga xamante rek war naa am sañsañ bi pour saaga ko Rambo tontu ko nekk loola gisuma ko ndaxte musta am ci biir réew mi moom Jammeh nag mu nga gaaralee kàddu yi ci réew mi mu toogee mu di Équatorial Guinée Seydou Camara Star TV News di jaajëfal Seydou Camara mbokk yi ñu jàll seeti xibaar yi bitim réew tàmbale ko nag foofu ca Libya Libya nag ci jamono juntoon ni ah, seen capital bi di Tripoli nag daal di ñu rek wax ne am na ay doomu aadama yu fa tàmbale woon ah, lii di yoon yi gannaaw bi rek jëmale li nga xamante nag mooy bitim réew ah, balaa ñu doon egg nag am na benn accident bi nga xamante nag dañ ci mucc ndaxte nag gaal bi waxoon ne ne daf doon këpp waaye nag ñu yore wàllum bunti kaaraange gi foofu noonu rawatina nag boobu noonu dañ leen far jàppale euh, ba kenn ci ñoom ñàkkut ci bakkanam waaye tamit nag wax ne ne gaal boobu euh, ñu fa nekkoon ñooy ay yoon Mali ak Guinée euh, ñoo fa daal di woon fees ba itamit nag ay Sierra yoon si seeni bopp tamit ñu ngi woon ci gaal booba waaye tamit nag wax ne ni tam ay doomu aadama yoo xam ne ay jigéen leen te ñu ngi ëmboon sax ànd ak seeni doom ci jamono juntoon yi ñu ngi bokk woon ci li nga xamante nag mooy gaal booba daal di ñu rek jàppale ci li nga xamante nag mooy gaal boobu dem delluwaat ci géej bi di wax ne ñoom dañuy xaru ndaxte nag ñoom den pare rek pour egg foofu ca bitim réew jaare nag yoon bi ci li nga xamante nag mooy yoon yi gannaaw bi waaye tam wax ne ne ci jamono juntooni kenn ci ñoom ñu mucc lii di accident boobu ñàkkut sañu bekkeen nag gannaaw xale yu góor yi nga xamante nag ñoo pare woon pour dugg ci li nga xamante nag mooy géej ba waaye nag den leen fare tare aaye pour la ñu daal di war a mën a delluwaat ci fi nga xamante nag mooy gaal booba Euh, mbokk yi ñu jàll seeti xibaar yi foofu ca euh, réewum Zimbabwe Zimbabwe nag si jamono ju toll nii wax ne ne nag ay doomu aadama ñu ngi ñàkk seeni bakkan gannaaw bu ay rab nag di jógee seeni bërëb yu ñu leen dencoon rëcc nag du dugg ci askan bi te ñu toll ci ñaar fukki nit ak juróom-ñeent daal di ñu rek ñàkk seeni bakkan gannaaw bu ay ñay daal di leen attaque si seen bërëbu dëkkookaay yi nag ba ñoom si seeni bopp ñàkk seeni bakkan lii nag doon na loo xam ne ñii di nguuri Zimbabwe si boppam ñi ngi def seeni kéemtalaay kàttan rek pour jàppale askan bi pour rekk ñi daal di mucc ci askan bi ak tamit nag attaques yi nga xamante nag mu ngi xew foofu jëmale ko nag ci wàllum li nga xamante nag mooy euh, lii di ñey yooya ci jamono juntoon ni nag wax neen nguur gi si sañi bopp ñu ngi def sañi kéemtulaay kàttan pour jàppale leen waaye doomu aadama yi nga xamante nag ñàkk neen sañi bakken ci lii di attaques yooya ñoom i nag ñu ngi leen di far di leen jébbal suñu borom waaye nag kii di ñiiti nguuru mi ci boppam mu ngi mastaw li nga xamante nag mooy njaboot ñu ñàkk sañi bakken ci lii di accident booba waaye nag pare neen pour la ñuy def pour jàppaat rab yooya dugal leen ci bërëb yi nga xamante nag leen leen dencoon mbokk yi foofu ca réewum Kenya Kenya nag lu toll si ñetti doomu aadama yëngatu ci wàllum jàngale mi daal di ñu rek ñàkk seen i bakken gannaaw bu am attaque amee niki lundi eh, si eh, fukki fan ak eh, juróom si fukki fan ak ñett si leen daal di am attaque booba bo ñoom ñoo ñett ñoo ñetta si ñoom daal di ñàkk li nga xamante nag ñooy seen bakken waaye nag wax ne ni nguur gi ci boppam mu ngi mastawu waaye tamit nag ñu ngi seet attaque boobu ñen ñoo ko def waaye étiqueté kiti neen tuuma bi teg ko ci ndoddu saxaar yi di wax ne naa ñoom groupe boobu ñoo ñu yëngatu ci wàllum islam ah, ci boppam di ay mbootaay foofu eh, tamit nag di yëngatu ci wàllum li nga xamante nag mooy bunti kaaraange ge ah, ca Kenya ñoo def attaque boobu waaye lool tuuma la ah, ñoom nag ñu ngi koy daal di dàqalu bu baax a baax di wax ni daal di leen def ay gestu pour xam ñan ñoo def li nga xamante nag mooy attaque booba waaye ci jamono juntoon yi wax ne ne ñetti doomu aadama yëngatu ci wàllum jàngale bi den fa ñàkk sañuy bakken ci attaque booba mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax moo doonoon suñu mujjanteeli xibaar fii ci biir kër bi xibaar yu marax yi nga leen ci woon ak Dado Dia di jaajëfal caméraman ak ki nga xamante nag moo nekk si machine bi jërë ngeen jëf